xam nga jékki-jékki rek Sénégal moo xam ni jàmm rek a fa nekk ñu jékki-jékki rek ñu la le problème du foulard Saint-Jacques Saint-Jacques gendarme mais kooku pourquoi muy xew Sénégal Sénégal nga xam ni tey su fekkee nekk naa le conseil le co-président du conseil mondial des religions pour la paix ni sëñ Touba sëñ Fallou defoon ak sëñ Babacar Ndax les Chinois s'y sont opposés mais Américains ñoo ñoo taxaw ni le Sénégal est un pays petit pays mais un grand peuple nous avons def lu kenn Mais à 96 des musulmans euh, daal di élire un président pendant plus de 20 ans amul feneen Sénégal xool les voisins du Sénégal Quel ku yow ko def Sénégal dëkk kon bu qui parle de religion et paix Sénégal c'est Mansour su même sous ubbiwul génn D'ailleurs.

Nous avons créé au niveau du du débat sur l'écriture de l'histoire du Sénégal mais nous avons na l'histoire du Sénégal une des problèmes. parce que l'histoire a été comptée jusqu'à présent par qui par les talibés et par les griots c'est les griots qui ont ku nekk da ngay ñu woy sa nga mets en cause. talibé yi ont une histoire de seen wéy histoire Mais Mais seen c'est histoire bopp la C'est C'est la Malick du ndax bi mu koy wax sëñ Babacar a ngi toog bi mu koy wax sëñ Moustapha a ngi toog bi mu koy wax sëñ Abdou a ngi toog bi mu koy wax sëñ Habib a ngi toog bi mu koy wax sëñ Mansour a ngi toog bi mu koy wax a ngi toog bi te ñëpp am xam-xam mais kooku ñooñu duñ dem tey ñu bëgg li nga xam ne mooy la démarche scientifique mais affaire bi dafa am rek moo Mamadou Diouf au niveau de New York man dégg tool yi man ma dégg naa tool yi waxoon naa ko Ibrahima. waxoon naa tamit dana bare coow parce que dama am des questions yu nga xam ni kenn musu xamul les fondements historiques waaw mu ne ma man bind l'histoire bu Kayoor bi mu ko bindee du wàll joor moo wax Sall ñoo ma attaqué ñu ni pourquoi ma wax ni seen seen maam Thiam la mu ne man waxuma ko Lat Joor moo ko wax Lat Joor moo wax ni maam mi ñoo wax. Mon putain ma leneen l'islam lui histoire bi li mu bind mooy su fekkee devant les Français Demba Sall le ko wax man ma bind man Mamadou Diouf si fekkee ni a perdu devant les Français c'est comme moom moo wax Demba Sall kenn musu ko wax man maa ko mën su wax mais y a l'histoire de Guillaume l'histoire des talibés dama mës di wax Ibrahima Thioub le recteur de l'université

Je suis dina je choisir ce choisir ce promotionnaire Nous choisir matière yi nous choisir nous nous dit nous toutes les universités du monde mais femme, nous nous nous wax ne nous Nous pas yoonu si ni Nous nii ngay les nii Nous au 19e siècle pour la sacralisation du savoir